ba tax dëkk président du Sénégal ñëw fi nga xamante ni mooy si par rapport ak biir Sénégal maître Abinar nag di avocat bu mag avocat xeex loolu ba bi ba ki nga xamante ni ñoom bu demee defar ba ñam si soxlaam su mel ni deux mille onze daloon na Macky Sall mu ñëw fi nga xam ne mooy Taïba Ndiaye jàmm fi nga xam ne mooy grand Macky waaye tey nag ñu dong ñu def ko tànn ay lacrymogène dugal ko ci grand Macky kenn xamul ay ñaata oto gendarme lañ fi andi actuellement quatre Sénégal kon mbokk yi ñu ngi suñu ginnaaw bi muy cinq mi ngi noonu ñoo ngi fi nga xamante ni moom moo di Taïba toll fi nga xamante ni moom moo di euh, jumaa ji grande mosquée bee nekk nii di leen fàttali nii gazé nañ Ah, ñi nga xamante ni ah, moom mooy ah, convoi bi gazé gazé waat ñi ngi ci biir dëkk bi di gazé ak di jàmmarloo ak xale yi pour ñu dégager yoon bi loolu nag gendarmerie moom moo ko def dernière kii bi ngeen gis épisode bi ngeen gis bi moom moo am fii nga xamante ni moom moo di barabu Serigne Touba barabu Serigne Touba ndax ñëw na foofu nekk fa ñetti fan di wéet ak sunu boroom Euh, président Ousmane Sonko jaaroon foofu pour euh, sàkku ñaan waaye ziar itam bërëb bi euh, ci jamono yooyu noonu lañu ñu waat kon yéen koy gis convoi baa ngi noonu arrêté waat na convoi waat ngi noonu arrêté waat na parce que seen élément yi ils veulent coûte que coûte ñun jamono yi nii loolu sax dañ ko fi tere waaye yàlla baax na président Ousmane Sonko mu ngi nii ci convoi bi ñu war a regagner li nga xamante ni euh, moom moo di suñu destination waaye di leen fàttali ne fi ñu waroon a tenir la réunion muy bërëb bu privé muy kër gi nga xamante ni euh, maître mooy këram euh, foofu la ñu waroon def jotaay bi comme nemmeeku tuur yëpp fi ñu koy defee ci ay biir kër lañu koy defee foofu dañ ñoo tere ak si foofu dañ koo tere ak si foofu yéen a ngi gis askan baa ngi noonu ah xale yaa ngi xale yaa ngi noonu sonko sonko gi jolli waaye xam naa itam ah, léegi lacrymogène yi ñëw ndax ah, daanaka gars yi lii la lii la ñuy bañ waaye ah, ñu ngi progressé tere nañ ñu dugg fi ñu bëggoon a dem fi nga xamante ni moom moo di Taïba fi ñu fa waroon a dem tere nañ ñu fa dugg loolu mooy l'information du jour mooy à tayba la liberté d'expression bien la liberté de réunion Euh, bi nga xamante ni moom moom moo moom moom war a am ci ñi nga xamante ni moo di tous les citoyens sénégalais nga xamante Euh, président de la république du moom moo ko fi teg waaye constitution moom moo ko fi teg moom moo di la liberté euh, de réunion est garantie par la constitution sénégalaise tey tere nañ ko ki nga xamante ni moom moo di président Ousmane Sonko ndax fi mu waroon a dem dañ ko tere agsi fi mu waroon a dem te pourtant ci bërëb bu privé la ci këru jaamur la mu waroon fa ñëw ñu gazé convoi bi ba fi ñu waroon dugg dugg ñu ñu ngi nii fi ñuy génnaat dëkk bi ndax ñoom dañ ñoo pousse pour ñu génn dëkk bi fi ñuy génnee dëkk bi foofu la xale yi génnaat encore fëlaat parce que ñoom moom seen dëkk xam nañ fi ñuy génnee ñoo génnaat di yuuxu président président yéen a koy seet noonu nit ñaa ngi noonu génn lii la yàlla dogal waaw xale yaa ngi noonu génnaat nañ askan baa ngi nii nit ñaa ngi ni seen kaw terrasse yi yéen a ngi koy xool donte lacrymogène yi tàkk na ñoo ngi seen kaw terrasse yi nekk seen biir kër yi di yuuxu sonko sonko lii la yàlla def lii la yàlla def xaye xam naa ne comme xale yaa ngi ni nii génnaat nañ waaye yéen a ngi seen noonu girafoire yi mi ngi noonu ci ginnaaw xam naa léegi léegi rek yàggatul léegi lacrymogène yi tàkkaat waaw yéen a xool xale yi ni ñuy fëllee di génn di topp convoi bi waaw xale yaa ngi nii ah, gis nga auto gendarmerie mi ngi ne fël na ci angle bi yéen a koy séen fël na ne ci angle bi mi ngi noonu fël na noonu ci angle bi xaaral ñu defaru ndax xam naa ni léegi ñu tiire teewul ma ma defaru gars yi wax leen oto yi ñu ko gendarme yi bu ñu jiitu dañ ñoo bëgg a jiitu gazé bu ñu jiitoo mi ngi noonu oto oto ma yaa ngi noonu di jéem a doublé booy yi waaye bis bu ñu leen doublé rek euh, ñu dóor lacrymogène yi moom la ñuy xaar xam ngeen di li doonatul jàmm lacrymogène yi la ñuy xaar waaw ñi ngi noonu dinañ tiire seen oto baa ngi noonu oto oto oto gendarmerie baa ngi noonu xale yi may nañ ko mu jàll waaw xale yi may nañ ko mu jàll xam naa yàggatul léegi ñu tiire yàggatul léegi ñu tiire bu ñu àggee fee daal di tiire mi ngi noonu tiire nañ mi ngi noonu tiire nañ tiire nañ tiire nañ oto bi romb bi oto bu romb bi oto bu romb bi moo sànni ay lacrymogène directement ci ci convoi bi oto bi romb bi moo moom moo sànni directement convoi mi ngi noonu waat nañ mi ngi noonu yeneen xool saxaar si saxaar saa ngi noonu et pourtant jamono yi convoi bi day génn Taïba dañoo bëgg a génn dem ñibbi. bi day génn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 Euh, te pourtant convoi bi dafay génn convoi bi dafay génn mais euh, dañ ñëw tiirewaat ay lacrymogène yéen a ngi seen noonu seen dispositif seen dispositif baa ngi noonu dispositif baa ngi noonu et pourtant convoi bi dafay génn di ñuy génn nii waaye euh, comme ni ngeen ko gisee rek sànniwaat nañ ay lacrymogène dooraat nañ ay lacrymogène daanaka ñi ngi koy commencé tàmm waaye lii moo dul yoon parce que la liberté de réunion yéen a ngi dégg lacrymogène yooyu yéen a koy dégg ci son bi ñi ngi continuer di tirer ak xale yi. waaw. léegi da leen jiitu woon ñoom fexe ba jiitu li nga xamante ne moom mooy suñu cortège yéen a ngi la promotion ne ñu ngi leen du dóor fiir ci saa yeneen dégg yi waaw yéen ci Taïba Ndiaye moom tey ah, sam na sap sam na sap sap sap affaire da ngay nooyi benn yoon mu jeex dootoo ko jot voilà ah, ah, euh, euh, nga xamante ne tey moom la ñuy dund ñoom mosuñu kaa dund ci seen àdduna mosuñu kaa dund ci seen man sama bëcc ni muy sottee ko nii baax mel ni oto président mi ngi noonu yéen a ko gis mi ngi nii oto président mi ngi nii yéen a ko gis waaye nag metti na lool lool lool lool lool li nga xamante ni mooy police bi li mu def